ma ñëw fekk ko ay gan ay benn benn gan yi boppam teew. waaw ma ñëw mu séen ma dal di bég tàllal ma loxo. ba ah, bañ a barke Serigne Touba ma ñëw nuyu ko siyaare ko bu ma naam ciwoon ma ne ko Mbàkke noo ngi lay noo ngi lay siyaare. bañ daal di joxe sama addiya daal di siyaare toog. mu daal ni ma nii ma toog ci wetam ñëpp ne tekk di déglu ma ne ko sëñ Béthio ma yebal. bañ ma nga lay sant bu baax Mbàkke ma nga lay ñaanal nee na kóllëreem nga leen saal yu booleeloon. saa su ñu di la ko fàtte waaw mu ne sa law fàttewu ma ko sa law fàttewu ma ko ma ne ko moo fi yebal kat ndax ren daa bëgg sancaan yi mu waañ yi muy samp ren kat da ko bëgg a yokk bëgg cee boole njaareem waaw foofee nga xam ni mooy pénc ma ca njaareem daa bëgg ren samp fa waañ woo xam ni dañuy bernde booloo mi waaw te bëggula def lenn lu wut lu dëppoowul ak sa ndigal mu ne ma naa la ko ñëw yëgal si la ko laaj la ci ndigal loo ko ci digal rek mu def ko ah, waaw sëñ Muntaxa ma njaareem de barabu liggéeyukaay la foofa de Serigne Saliou jaar gam fa jaar képp daa jar ñu samp fa wàññ eh. barke sëriñ Touba mu ne loolee day liggéeyal Serigne Touba la nee na mi ngi lay ñaanal nga am ci ndam barke Serigne Touba daan ne moom mi ngi lay fàttali kóllëre ga leen Serigne Saliou boole woon ah <laughs> waaw ma ne ko ah Mbàkke de. man kat la sëñ bi boole woon ak soxna Ayda ak équipe bu demoon jënd ji nag ya mi ngi waajalee màggal gi noo xam ni kéemaan la daal di ci putoxlu daal koy wax suñu jaar suñu suñu suñu suñu jaar ca Mali wax kon nañu fa nañu fa nag ya fekkee ma ne ko Mbàkke kat ndekete euh, lépp bëgg ñëw ci màggalu sëñ Tuubaa gi ci ci ci ci Mali gi laa ko xamee mun ma ah ma ne ko nag yi bi ñu yegsee di jënd da ngay gis nag yi fu ne ñu di fa génne di daw di buur jëm si ci ñun ndax xam nañ ni ñépp ci màggal gi lañ leen jëmee sëñ bi daal di ree ba kekku daan dama ànday saan ah loolu day loolu day ak cant la loolu day la sëñ bi ci yàlla na ko yeggale ak jàmm ci barkeb sëriñ Saliou daal di yëkkati ay kàddu cant ndeysaan mbooloo ma fa teewoon moom daal ñu jàngatee ci rek ne sëñ bi amati nga ndam màggalu ren gi am na ndam nu jëttaakoo yëpp. barke Serigne Touba. billaahi cun. yal na nu yeggaleeg jàmm yal na nu ko yeggaleeg jàmm te mu jox dàq ma ñëwagul at ma ñëwagul dàq mi bi weesu waaw yàlla da ko Serigne Saliou def ayca nan topp dag yi ñu dem naan yi waaw waaw bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wax wax la féete te xam la féete jariñu màggal ku jub di màggal li Yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital ma wax la màggal gi yàlla màggal néegu ko màggal danañ la màggal li Bamba woote ne buñ ko woote digle ci bernde looloo di màggal dix-huit safar mi ku ne teew mi xam ne ni moom mi rekk a Itaali xam naa Faransi xam naa Almaañu xam naa li moo di waroon na kon ñu gonta kay xëy di dajaloo kay waxtaani màggal murit yi jóg leen waa ji safar yeen ci bernde ak ñaan ñu jekku màggal waroon na koy ñëw Tuuba fa muy aw ñam wada koy aw ci barke màggal ñu yóbbu ñam ya ci hôpital ya ak prison ci barke màggal sëriñ bi aw ña la digle kuy dem na yóbbu aw ñam berde ci màggal képp ku màggal bis bii di màggal des na la màggal fonk ko moo war ku ko deful woor woote màggal bamba danoo moom amun ku moom nañ toppi digle te fonk màggal fépp fu dajee di booloo nañ jéem a booloo waxtaane màggal gàcce ganul rëy nga nekk bi xëy bi doon tey ngay ganti màggal loo